ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala moom mi ñu dajalawaat ci néegam bi fas yéene jël benn bind ci la nga xamee ne ni moo aju ci diineem da koy sukkandikoo ci téere bi di minhajul muslim bu abubakar aljabir aljazairi rahimahullah ñu yegsi woon ak yéen ci téere bi jàngale koor ba war a yegsi tey ci li ñuy tuddee makruhaati sawm mooy aljim ci bind ya nga xam ne mi ngi noonu almadatu saamina bi ba ca mujj makruhaati sawm lañu sib ci wàllu lu aju ci koor tey jii mooy ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru Sha'ban ci 1443 loolu muy wañu ne incha allah mooy dars bu mujj bu ñuy jël ci timis jiitu la nga xam ne moom mooy chahru ramadan ca chahru ramadan bi bu ñëwee moom moo leen bind fiq yépp dañ koy bàyyi ba mu paase incha allah su dee mbokk yi gis nañu bunt bi muy makruhaati sawm li ñu sib ci koor dana lay wax ne yukrahu li saaim umurun kii di aji oor sib nañ ci moom ay mbir min sha'niha al ifdaau ila fasaadi sawm la tax ñu sib ko mooy mu bañ koo wàcc di ko yóbbu ci luy yàq kooram wa in kaanat fi xaddi zaatiha la tufsidu sawm doonte ne bu doon ca nga yem loolu moom du yàq koor gi waaye nag dalaa mën a yóbbu ci li koy yàq mu indi ci fukki mbir bi ci jëkk al mubaalaghatu fi l madmadati wal istinshaqi inda al wudu bi ci jëkk mooy jéggi dayoo ci bi ngay gallax ndox góox ndox mu bëree bëree bëri ci sa gémmiñ bari loo koy def loole wala di sarax ndu ko di xëcc ndox mi bu baax a baax ci say bakkan li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam baalig fi l istinshaq illa an takuna saa'ima yonent bi alayhi salaam mu ne bu dee da ngay jàpp kan la waaye fexeel dugal bu baax ndox mi sa bakkan lu dul nga ragal ni lu dul nga fekk da ngaa woor faqad kuriha lahu sallallahu alayhi wa sallam aw faqad karaha lahu sallallahu alayhi wa sallam al mubalagata fi l istinshaq yonent bi sib na nit ki jéggi dayoo ci sarax ni ko xashiyata an yasila ila jëfihi shay'un min al ma fa yafsudu sawmahu ngiree loolee mu nekk di yàqu kooram mi nga noonu fa yafsudu sawmahu loolu yàqu kooram kon la nga xamee ne nii moom mooy sarax niku ba ndox ma jàll sa put loole day yàqu koor gallax ndi ko ba ndox ma jàll sa put loolu day yàqu koor doonte ne ni waxuñu ba nga gallax ndi ko ba pare desitu ndox ya des sa gémmiñ loolu moom waxuñu ko waaye mooy jëmmi ndox mi ci boppam daal di yegg ni ngi noonu ba ci mujj ba ci ñaareel ba mooy alxubla nit ki daal di doon koo xam ni dafa fóon la nga xam ne mooy soxnaam إذ قد تصير شهوة تجر ila ifsaadi sawm bi xuruj al mazi mu ne ndax nit ki nekk naan day fóon soxnaam mën na yëkkati bànneexam boo xam ne mën naa yàq kooram ca mas yu génn ca bu dul lu ñuy tuddee erreur machine mu bëgg a bind menu yu mu bind mas yu donte ne borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ndax mas yu day yàq koor am ca ñenn ñoo xam ne dañ ne ahakay day yàq koor donte ne am na ñeneen ci ñoom ñu ne génnug mën yi mooy yàq koor waaye daanaka bu ñu xoolee su dee yow yaa sabablu sakku bànneex ba si mas yu génn mën nañ wax sa koor day yàqu moom na nga xamee ne nii noonu la ko yenn fuqahaa yi di gisee ca mooy aji woor ji dafa bàyyi bànneexam ngir yàlla kon kay bànneexa ba ma ziyam génn kooku bokkul ci ñi yàllay wax amma bu dee ne nag la nga def ak soxna sa daa yégg moom ci génne sama niyu loolu moom dana ñëw ci kanam kon loolu mën na génne ma ziyam awil jima xaysu tajibul kafaar kafaara wala sax seytaane man ko ba mu ànd ak soxna si ci bis bëccëgu weeru koor te loolu da koy jural mu kafaara woor ñaari weer yoo xam ne dafa tegalu ñetteel bi nga xam ni dañ koo sib ci koor idaamatu nazri bi shahwati ila zawja mooy nga saxal sa xool ci bànneex jëm ci sa soxna ndax loolu lam mën a génne ci yow ci mas yu loolu nag buñ koy wax kay seetaan ay filmu di seetaan yeneen i jigéen kooku moom daa boole ñaari mbir li muy def bu wóorul woon baaxul boo wooree waxi noppi waaye ki ñuy wax fii kay kii jàkkaarloog soxnaam moo tax ñuy wax ñeenteel bi al fikru fi sha'nil jima mooy nit ki toog rek di xalaat ci wàllu sëy toog di xalaat ci wàllu sëy fekk da ngaa woor loolu dañ ko sib juréel mi juréemeel bi lams bil yedd lil marati aw mubasharatuha bil jasad mooy nga jël sa loxo di ko raay jigéen wala seen yaram yi di jonjoo seen yaram yi di jonjoo di laalente doon ca kaar yalam ca peneen lam lu mu mën a doon juróom bendeen mooy madxul alaqi xashyata an yatasarrab baadu ajzain minhu ila al xalaq la nga xam ne nii moom mooy yëy ay singom bi ngi noonu di yëy ay singom bu dee da ngaa yemoon te yéey ga rek yàbbi ko loolee du ñu wax yi koor ga yàqu na waaye jafe na lool nit ki yéey singom ca amul lu jóge ci singom ba dugg ci ak putam mi ngi noonu juróom-ñaareel bi zawqul qidri aw it taam bokk na lu ñuy sib dem di mos ay cin wala di mos ñam donte ne loolu yàqul koor waaye bu dee jigéen ba nga xam ne moom mooy togg moom te la muy togg mu bañ mu yàqu la mu jël ci catu làmmiñam teg ko ci gannaaw bu burusu ko ba xam ne saf na sukkar wala saf na nuñ koy waxee ci ci xorom loolee dees na ko ko jéggal waaye daal bu dee yow bokkoo ci aji togg ya nga jëloon ñam sex ko yebbi ko loolu yàqul sa koor waaye nag loolu sib nañ ko lool nga nga koy def juróom-ñetteel ba al madmadatu li gayri wuduin aw xaajatin tad'u ilayha juróom-ñetteel bi mooy nga dem di gallaxndiku woor ba ngoon dem di gallaxndiku rek te loolu ku ne xam na ne ne koorug ndakaaru moom mooy koorug ndakaaru waaye ñii woore ci àll bi à partir de une heure ngay gis ne seen gémmiñ ñi de woo koŋ loolu nag ba tey it sib nañu ngay dem di góox ndox rek di gallaxndiku balaa seytaane man ba dara di jàll doonte ne def ga nga koy def yàqul koor gi juróom-ñeenteel bi al al al ittihaalu fi awali nahaar mooy ngay tus nga lu ca njëlbeenu bëccëg ba wala ba'sa fi axirihi amma bu dee ne ca mujj ga tus nga lu dara nekku ca loolu moom noonu la ko waxe bi ci mujjoon mal alxijaama aw il fasdu xashiyata dafil muaddi ila iftar mooy la nga xam ne moom mooy ay gàjj yu xijaama wala ay ventouse yoo xam ne dañ koy def di génne ay deret yu dee wala yu dema noonu ndax loolu nam mën a néewale nit ki doole ba yóbbu ko ci mu dokkooram lama mi ngi noonu lama fii taxrir bi sawmu mooy lam nara nekk di indi ay fitna ci sa koor googee ba yàqal la ko kon yii ay mbir la yoo xam ne comme niñ ko waxee jëmmi def gi nga ko def loolu yàqul sa koor waaye nag comme daa mën a yóbbu ci yàqu koor ñu war koo moytu te lay yëgsi ci almadatu tasia juróom-ñeenteelu bunt bi ci wàllu koor te mooy fii ma yabtulu sawm mi ngi noonu fii ma yabtulu sawm lan mooy neenal koor wa ma yubaahu lissaim filuhu wa ma yufa anhu lan mooy neenal koor ma yabtulu sawmu umurun hiya lii yàqu koor daal mbir yii la bi ci jëkk wusulu maa'in ila jawfin bi waasitati al anf ka saut mooy nit ki am loo xame ne nii dafa yegg ci biiram ba ci loo xam ne nii am ndox la mu jaare na doon ca bakkan ba ngi noonu comme yooyu nga xam ne dañ ko cay def muy toq yi ñu jaarale ci bakkan rek pour mu dem ca biir lépp lu jaar ci bakkan jëm ci biir dañ koy tuddee sawut awil ayn wal uzn ka taqtir wala mu jaare ca bët ya wala ca nopp ya lu mel ne kontu guddi ya lépp loo xam ne nii ab liquide la bu nit ki jaarale ci bakkanam wala mu jaarale ko ci bëtam wala mu jaarale ko ci noppam yëg ne liquide ba wàcc na ba ci putam ba dugg ca biir loolee day yàq koor awut duburu même bu dee daf ko jaarale ca suufam wa wa wa xublil mara wala la nga xam ne mooy payu jigéen ka kal xaq na lu mel ne ouvilier yooyu yépp da ngay gis ne pour moom day yàq koor ki jël ay ay ay ovule dugal ko ci biiram kooku day yàq koor wala nga jaarale ko sa gannaaw day yàq koor ndax ñoom li ñuy jàpp mooy lépp lu dugg ci biiru doomu aadama loolee ak foo ko mën a jaarale day yàq su ko ñaareel ba mooy ma wasala ila al jawfi bil mubalagati fi l madmadati wal istinshaq fi l wudu wa gayrihi loo xam ne yegg na sa biir ma nga jóge ca jéggi dayo ba nga jéggi dayo ca gàllax ndiku ya wala sarax ndiku ya ñetteel ba nag mooy xurujul maniyi bi mudaawati bi mudaawamati nazr aw idaamati fikr aw xublatin aw mubashara mooy ki fexe ba génn maniyoom na doon daa saxal di xool lu wàllu jigéen wala mu saxal di xalaat ci jigéen wala mu nekkoon di fuun jigéen wala di jonjoog jigéen ba maniyoom génn ku mel nii da ngay gis ni kookee ak kooram moom doon na koor goo xam ne koor gu yàqu la bu dee ñeenteel bi al isti al istiqaau nit ki al amdu mooy nit ki tey ko daal di waccu tey ko daal di waccu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man istaqaa amdan falyaqdi koo xam ne yaa ko tey waccu ngal la way na fay bis boobee mi ngi noonu na fay bis boobee amma man galabahu alqayu fa qaa bi duni ixtiyaarihi fala yufsidu sawmu ki nga xam ne nag moom wàccu da ko bett tayu ko mu wàccu loolee yàqul kooram wante ne ni borom xam-xam ne am na ixtilaaf ci ndax wàccu day yàqu kooram du ko yàq juróomeel bi mooy al aklu aw shurbu aw al watu fi xaalil ikrah ala zalik mooy ki nga xam ne dañ koo forcé da ko dogal sa koor forcé ko ci mu sëy ku mel noonu kooram yàqu na lu tax mu yem ci na kooram yàqu na rek mooy ko mel noonu kafaaru du ko war su dee ne dañ koo forcé ci loolu kafaaru du ko ca war waaye nag koor ga moom yàqu na juróom benneel bi man akala wa shariba zannan baqa al leyli suma tabayyana lahu tuluu lfajr kii moom da doon lekk di naan jàpp ne ne ah mi ngi ci guddi gannaaw ba nag mu wóor ko ne ah man kat maa ngi doon lekk ci waxtu woo xam ne nii fajar jotoon na ba pare def na erreur ci montrom wala lu mu mën a doon gannaaw ba mu wóor ko ne man kat nekkate bi muy xëdd fajar jot na ba pare bis boobee da koy fay bokk la koo xam ne moom daa sikk sàkk ci ne ndax fajar jot nag jotul su dee mbir ma ci sikk sàkk la yem mooy waa man ndax bi may xëdd fajar jot nag jotul sikk sàkk boobee yàqul kooram waaye bu dee am na ci yaqiin ne ah kay man kay bi may mujj lekk fajar jot na su boobaa loolee day day day day fay bis boobee kon àndal mi ngi noonu zànnal al misak bokk na ci ba tey juróom-ñetteel bi mi ngi noonu wala boog juróom-ñaareel bi mooy man akala wa shariba zaanan duxula leyli suma tabayyana lahu baqaau nahaar mooy kii moom daa jàpp ne dog jot na ci jant bi moo ko nax wala montaram moo ko nax mu dog gannaaw ba nag mu am lu ko wóor ne man kat ndekate bi may dog dog jotugul su boobaa ku mel noonu day fay bis boobee ca la gën a peek la gën a peek day fay bis boobee juróom ñetteel ba mooy man akala aw shariba naasiyan summa lam yumsik zannan an al imsaaka gayru waajib mooy ki nga xam ni daa lekkoon mu naan fàtte na daa woor kookee kooram yàquwul waaye bu jàppee ne man kat sama koor gi yàqu na daa di continuer di lekk ak naan ku mel noonu maadaama qad akala wa shariba fa waasala al fitre ila leyl bu dee dafa lekk naan continuer doog ba ba ba guddi jot dañuy gis njëlbeenu lekk ga koor ga yàquwul woon waaye lekk yam ca teg yàq na kooram juróom-ñeenteel ba mooy wusulu ma laysa bi taam aw ishrab ila ila ila al jawf bi wasitati al fam kaptilaa il jawhara aw xayit mi ngi noonu mooy bu dee da ngaa lekk loo xam ne nii du ñam wala nga naan loo xam ne nii du lu ñuy naan nga jaare la ko ci sa gémmiñ mi ngi mel ni nga wan noon ay per wala nga wan noon ay buum ay wëñ loole day yàq sa koor lama ruya an ibn abbas radiallahu anhuma qaal asawma lama daxala wa laysa lima xaraj bu ñuy wax koor la koy yàq mooy lu dugg ci biir waaye du la génn moo koy yàq te loolu it moom dafa d'accordul ci ñi naan wàcc lay yàq koor waaye la nga dugal sa biir loolee moom di yàq sa koor yuridu radiallahu anhu bi hada anna sawmu yafsulu bi ma yadxulu fi ljaws la bi ma yaxruju ka dami wal qay ibnu abbas moom daf daal gis ne koor daal la koy yàq mooy lay dugg sa biir amma la cay génne ci deret ba nga xam ne dafay jaar ci sa bakkan wala wàccu yooyu yëpp moom maadaama luy génn la moom yàqul sa koor waaye koor la ko yàq mën na cee dugg bu dee ne fukkeel bi mooy nit ki daal di dindi yéeneem wooroon ba mujj mu dindi ne yéeneem na ah tey daal du bisu koor wooratuma maadaama dindi na yéeneem rek walaw lam yaakul aw yashrab in kaana gayra mutaawil lil iftaar wa ila fala bu dul ne lekkul naanul teewul koor ga yàqu na lu dul moom mu def gisinam may ko ne dog daa jot ëwma lu ma doge mu ne kon yéene naa dog naa ku mel noonu dañuy gis ne loolee yàqul kooram waaye bu ko wóoree ne moom dog jotagul mu daal di dindi yéeneem ci koor loolu day yàq kooram juróom-ñeenteel bi wala ba fukkeel beeg benn mooy ar-ridda anil islam in aada ilayhi ki nga xam ne dafa génn ci lislaam même bu doon daawoor bu dellu suwaatee ci biir lislaam it bis boobu moom yàqu na ci qawlihi sallallahu taala la in ashrakta la yaxbatan amaluk wala takunanna min alxaasirin bis boo xamee ne nii bokkaale nga sa jëf yépp dañ ko màbb te da nga bokk ci ñuy perte wa haadihi haadihi almubtilaat kulluha tafsudu sawm wa tujibu qadaa alyawm alladi fasada bi gayri annaha la kafarata fiha fukk yi mu la limal yépp loo ci mën a def dana yàq sa koor waaye nag du yóbbu ci nit ki ñu ne ko day def kafaara iz il kafaaratu la tajibu ila maa mubtilayni wa huma kafaara moom lan moo koy waral ñaar a koy waral bi jëkk aljimaau lamd min gayri ikrah koo xam ne moo ko tey ci bëccëgu weeru koor dem ànd ak soxnaam su àndee keneen moom wala iyaazu billah waaye ànd ak soxnaam ku mel noonu dafay war def kafaara li qawli abi hurayra radiallahu anhu jaa rajulun ila annabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala halaktu ya rasulullah benn waay ñëw ne ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ah yow mi yàlla yónni alkunaade alkunaade yonent bi ne ko waaw lu xew qaala wa ma ahlakaka lan moo la alak qaala waqaatu ala imraati fi ramadan man day dama ànd ak sama soxna ci bëccëgu weeru koor fa qaala hal tajidu ma taatiqu raqaba mu ne ko waaw ndax am nga loo mën a goree la ab jaam qaala laa mu ne ko déedéet qaala fa hal tastatiu an tasuuma shahrayni mutataabiayn ndax mën ngaa woor ñaari weer yu tegaloo qaala laa ah déet yow mi yàlla yu ne loolu mën ma ko qaala fa hal tajidu ma tutimu sittina miskina ndax am nga loo mën a leel juróom benn fukki miskin qaala laa déedéet loolu yow mi yàlla yónni ooma dara summa jalasa gannaaw bu mu dem toog fa utiya nabi sallallahu alayhi wa sallam bi araqin fihi tamr yonent bi ñu indil ko benn bagaan gu mag goo xam ne tàndarama ci nekk fa qaala xuz tasaddaq bi haza bi haza bi haza mu ne ko yóbbul li nga sarxeju ko ngir li la dal mën a far waa ji na ko waaw waa ji na ko waaw hal ala afqara minna ama ndox yi mu yàlla yónni dama ko yóbbu di ko sarax ci ñu gën a ñàkk sama waa kër fa wallahi ma bayna laabatayha nekkul ci diggante ñaari tund madina yi ahlu bayt benn waa kër ahwaja ilayhi minna ñu gën a aajowoo lii nga ma bëgg a sarxaloo fa daxika nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daa di ree xatta badat nawajidahu ba sellam yi di feeñ sallallahu alayhi wa sallam fa qaala idhab fatimhu ahlak mu ne ko demal nga leel ko sa njaboot sallallahu alayhi wa sallam loolee mbokk danañu jàngal ci ne doomu aadama bi war ngay moytu ndax gis ngeen kii soxnaam la àndal ci bëccëg weeru koor ba mu ca paree la xam ne def na lu ko alak wala tax yi njëkk a jàng fukk yi njëkk a jàng yépp dalay moytuloo loo xam ne dalaa mën a yóbbu ci loolu def na lu ko alak bi mu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam tegtal ko loo xam ni ki ne sox sa soxnaam yemale naa la ak sama yaay atte ya ca yàlla indi ca suratu qad samia loolu la ko yonent bi wax goreelal jaam mënuma ko wooral ñaari weer mënuma ko leelal juróom benn fukki miskin kon képp koo xam ne dafa ànd ak soxnaam ci bëccëgu weeru koor dafa war a woor ñaari weer yu tegeloo wala mu jël juróom benn fukki miskin ku ne mu jox ko curéb ceeb mi ngi noonu amma waa ji moom yooyu yëpp mënu ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dimbali ko ci lu mu war a sarxe loolu it muy wane ne kenn koo xamee ni nii waroon naa génn sarax boobee amul mu am mbokkam mu ko dimbilee lu mu sarxe su boobaa loolee da ngay gis ne dana ko teggeeku waaye waa ji it gis nga sant caam lool ne ko quoi yow mi yàlla yónni ah man ñii dara gënuñ ñu koy aajowoo mu ne ko kon yóbbul nga sarax ko sa bopp mi ngi noonu ala kulli xaal loolu mooy mbir bi ñaareel bi al aklu aw shurb bila uzrin mubih ki nga xam ne moom daa lekk wala mu naan ca du ngant boo xam ne nii bu ko koy may la wax na la sànq ya nga xam ne du lekk ak naan yi jaar sa bakkan sa bët sa gé sa nopp yooyu moom day yàqu koor am naa ki ka tey bi ci wéeru koor mu dem ci ceeb ba dank ba suur wala naan ba màndi ku mel noonu da ngay gis ne dafa war a def kafaara ci gisuñu lenn ci borom xam-xam moo tax mu ne inda abi xanifa wa malik rahimahum allah bu dee mazhab malik ak mazhab abi xanifa ñoom dañ naan ki ka tey dog kooram dafay woor ñaari weer yu tegaloo loolu moo koy kafaar suñu delluwaatoon nag yeneen i borom xam-xam ñoom dañ ne tegtal yu leer ci kafaara mi ngi wàcc ci ki ànd ak soxnaam ci sëy amma bu dee jëmmi dog weeru koor dog bi su weeru koor def na bakkaar bu mag ci bakkaar yi waaye duñ ko teg la nga xam ne mooy kafaar lan mooy tegtalu Malik ak Abu Hanifa wa daliluhuma anna rajulan aftara fi ramadan ñu ne seen tegtal mooy benn waay daa ñëw dog ci weeru koor fa amarahu nabi sallallahu alayhi wa sallam an yukaffir yonent bi ne ko da nga def kafaara wa xadisu abi hurayra radiallahu anhu qaal jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal aftartu yowman fi ramadan mutaammidan abi hurayra nee na benn waay daa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah yu mu yàllu yéen dog naa ci weeru koor bis boo xam ne day maa ko tey dog ko fa qaala sallallahu alayhi wa sallam i'tiq raqaba demal nga goreel ab jaam aw sum shahrayni mutataabi'ayn wala nga tegale ñaari weer yu tegaloo aw at'im sittiina miskina wala nga leel juróom-benn fukki miskin xadis boobu Buxaari solo na ko loolu moo tax lu mel ne mazhab Malik ak ak ñi gis gisinam ñoom dañ ne ki ànd ak bëccëg ki ànd ak soxnaam bëccëg weeru koor day kafaara waaye ki ko tey sangant dog ak nu mu mën a doge day kafaara wallahu subhanahu wa taala alam lan mooy li nga xam ne maye nañ ko aji woor ji war koo def ay maa yubaahu li saaim ki woor lan lañ ko may ci mu mën koo def bokk na ci loolu yubaahu li saaim umurun wa hiya asiwaak tuula nahaar mooy mën nay soccu bëccëg bi yépp allahuma illa ma kaana min imam ahmad lu dul ku mel ni imam ahmad moom nee na fa innahu karihahu lissaim bada zawal moom daf ne ki woor ba yo ba zawal jot mooy tisbaar jot ku mel noonu dafa war a arrêté ay soccoom ndax rawatina bu dee dafa nekk socc yoo xam ne socc yu tooy waaye bu dee jumhurul ulama moom dañ ne nit ki mën ngaa socc donte ne nga fexe sa kemtalal kattan bañ a wadd bañ a war na lay génne ca socc ba comme ni ngay gëllax ndiko ñaareel bi a tabarrud bil ma min shiddati al xar nit ki am na droit seral yaramam ci taraayu tàngaay wa sawaun yusabbi wa sawaun yusab yasubbuhu ala jasadi da koy jël di ko sotti ci kaw yaramam aw yaxmis fiihi wala mu dugg ci biir ndox moomee kon ba ci gu weeru koor nit ki jël ndox dem sangu yàqul kooram demoon plongé ci piscine ba wala dex ga wala géej ga loolu yàqul kooram ñetteel bi al aklu wa shurb wal watu layla la ngay lekk wala di ko naan fekk guddi jot na xatta yataxaqaqa tuluu lfajr ba baa mu lay leer nañ ñi ne fajar jot na waaye la ngay sikk sàkka lekk cag naan yàqul koor ñeenteel bi a safaru li xaajatin mubaaxa nit ki tukki ci tukki boo xam ne aajo la bu dagan ku mel noonu su dogee kooram yàqul koor wa in kaana yalam anna safarahu sa yuljiuhu ila al-iftaar doonte ne wóor na ko ne su ma tukkee damay dog koor it loolee du nekk loo xam ne dañ ko koy tere dañ ko koy tere boo déggee mu wax lu ñu tuddee safarun mubaaha bokk na li borom xam-xam yi di wax kiy jëm ci tukki bu xaraam masalan ci jógoon dem di njaaloo ji wala dem di sàcci wala lu deme noonu ku mel noonu su dagee bis boobu bañ koo woor boole na ñaari musiba dox na lu xaraam def na lu ko sharia mayul ndax sharia mi ngi ko may tukki boo xam ne nii tukki bu dagan la la suñu borom mayee ne bu ngeen ci nekkee may naa leen ngeen dog seen koor waaye kay tukki tukki bu xaraam kooku yàlla mayu ko mu dog kooram juróomeel bi may attadaawi bi ay dawaa in xalaal ki woor may nañ ko mu fajoo bépp faj boo xam ne bu dagan la laa yasilu ila jawfihi minhu shay'un ca loolee dara du ca yégg ca biiram ba wa min zalika istimaalul ibra in lam takun lil taxziya bokk na ci loolu mu jël ay piqûre ay vaccin yooyu yépp bu dee ne du luy dem di dugg ci biiram ba juróom benneel biñ ko may ba tey madhu taami li tifli saxiir laa yajidu man yamdahu lahu taamuhu alladi laa ginan lahu anhu mooy mu sàqamil xale bi ñamam xale boo xam ne li muy war a lekk il faut ñu sàqami ko te mënu ko sàqami nga sàqamil ko ko jox ko ko loolee du yàq koor bi charte an la yasila ila jofil maadir minhu shay'un charte ba mooy amul lenn loo xam ne yëgg na ci biiru kaka doon sàq mi juróom-ñaareel bi nga xam ne maye nañ ko ko woor def ko atatayibu wa tabaxur nit ki parfoowu suuru wa zalika li adami wurudi nahyi fi kulli hadihi min an sharia ci loo xam ne nii terewuñu ko tere bu leer ci sharia mooy cuuraay ba nga xam ne day dugg ci say yére wala parfum loole terewuñ ko donte ne lenn borom xam-xam bi dañuy wax naan saxari cuuraay bi ci boppam moom bu ko nekk di ko fóon ndax loolu moom mën na yàq sa koor ci lenn ca wax ci ñoom bokk na ci ba tey maa yu fa anhu li nga xam ne moom daañ ko baal nit ki bu wóoree mu def ko yufa li saim an umurihiya am na loo xam ne dañ ko may aji koor gi mooy bal u riiqi walaw kasura mooy mu wannu ay taflitam même ak lum bëri bëri wal muraadu bihi riiqu nafsihi la riiqu gayri lan ca nam mooy taflit yi génn si gémmiñ waxuñu lay génn ci keneen te loolu it am na ñu bëri dañoo jàpp ne boo wannee say taflit day yàq sa koor déedéet mbokk julit ñaareel bi mooy galabatul qayi wal qalasi in lam yarji minha shay'un ila al jawf ila jawfihi su dee wàccu dalaa bett wala gàll bett la nga génn ko mu dem loolu bu dee dara delluwaatul sa biir loolu yàqul ci sa koor baada an yaquun kad qad wasala ila tarfi lisaani te loolu it la ca yàq koor du la génne ca kaw put ga rek delluwaat waaye la nga xam ne ñëw na ba ci kaw làmmiñ bi ba yegg si ci catu làmmiñ bi loolu da nga ko war a génne boo ko dugalaatee loolu day yàqu sa koor ñetteel bi ibtilaau zubaab galabatan wa biduni ixtiyaar yi nga xam ne mooy insectes yi weñ sarax la wala yoo wala yu demee noonu loolee da ngay gis yàqul koor ñeenteel bi xubaaru tariq wal masania wa duxaanul xatab li nga xam ne moom mooy poussière yi nekk ci yoon wi wala poussière yi nekk ci liggéeyukaay yi menuisier yi nekk ci machine yi di rabote yooyu di génn wala jigéen ñi togg saxar bi génn ci matt mi wa yooyu wa saa'irul abxoora lati la yumkinu taxarruru minha ak mboolem yoo xam ne nii genre ay cuuraay la yu ñuy suuroo te yoo xam ne yow mënuloo ko moytu yooyu bu amee lu la ci dugg it yàqul sa koor juróomeel bi isbaahu junuban walaw yamdi alayhi nahaaru kulluhu wa huwa junub mooy nit ki àndoon ak janaba léegi amul lu mu sangoo bëccëg bi yépp sanguwul mën na woor koor gi baax na loolu la ñuy wax ci soxna si pare ci réglam ci amul lu mu sangoo ku mel noonu da ngay gis ne day tiim julli ay julleem woor kooram koor ga nekk na koor goo xam ne koor gu baax la juróom benneel bi al ihtilaam fala shay'a ala man ihtaama ihtalama wa huwa saa'im ci tëdd bëccëg daa di gént di sëy ba bi mu yewoo gis mënu wi génn na ci moom ku mel noonu loolu yàqul ci kooram dara li xadiis yi rufi al qalamu an salaata al majnun xatta yafiiqu wa naim xatta yastayqisa wa an sabi xatta yaxtalima yeneen ci bi alei salaam nee na ñett yi ñoom amuñu responsabilité ca la ñuy def kii teqali ko xelam ba baa xel muy dellu si kiy nelaw ba baa muy yeew kii xale bi ba baa muy majeur ñu mel nii kenn du leen topp responsabilité kon koo xam ne sa biir nelaw nga gént loolu yàqul sa koor juróom-ñeereel bi al aklu aw shurb xataan aw nisiyaanan ki nga xam ne dafa lekk mu naan fekk dafa juum wala dafa fàtte illa anna malikan yara annahu alayhi alqada fi lfard ka ixtiyaatin ci fàtte ne daa wooroon mu lekk wala mu naan kooku kooroom yàquwul lu dul bu dee na ko mel ne imaamu malik wala borom xam-xam yi nga xam ne dañoo gis aw gisinam ñoom dañ na ko mel noonu bis boobu da koy fay mi ngi noonu amma nafl bu doon te ne nag dafa nekk ci koorug naafile moom fala qadaa alayhi albatta ku mel noonu du fay bis boobu mukk loolu moom borom xam-xam bi xaw nañ cee dëppoo li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man nasiya wa huwa saim fa akala aw shariba falyutim sawma képp koo xam ne daa wooroon mu fàtte kooram mu lekk wala mu naan na mottali kooram fa innama at'amahu allah wa saqaahu yàlla moo ko leel yàlla moo ko nandal ay loolu wërsëg la wu ko yàlla may moo tax yàlla yóbbu xelam ba mu fàtte ne daa woor mu lekk ba naan ba pare dog koo fàttaliku mi ngi noonu wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man aftara min ramadan naasiyan fala qadaa alayhi wala kaffara koo xamee ni dafa dog ci bëccëgu weeru koor fekk moo ko tey fekk dafa fàtte ku mel noonee day du fay ca it du def kaffaara mi ngi noonu xadis boobee bu ca borom xam-xam yi dëpp woon coow dootu ca bari waaye foo ko gis rek ñene day fay dañ dul dëppoo ci xadis boobee kon bu ñu xoolee li nga xam ne mooy bind bi ci mujj almadatu alashira mooy fi bayaani alkafaara wal xikmati minha lan mooy kafaara mi ngi noonu lan mooy kafaara ak lan mooy xikma sagesse bi tax yàlla tëral kafaara الكفارة ما يكفر به الذنب ذنب المترتب على المخالفة للشارع كفارة موي لو خامني داي فار بكار بي كفارة موي مورنا ميغي نونو ميغي نون بو غيسه كافر موي دافا مور ngëm yàllam muur xéewli yàlla kon luy mën a far bakkaar bu mag ba nga defoon mooy juyoo ga nga juyoon ak sharia فمن خالف الشارع فجامع في نهار رمضان قوتك الشريعة داليو عندك صحنام تبتشك ويركور أو أكل أو شرب عامدا وجب عليه أن يكفر هذه المخالفة كمل نونو قال لك يا كوتي نان يا كوتي عندك صحن يا كوتي wuute googee nga wuute ak sharia da nga koo war a kafaara bi fi'li waahidatin min salaas ci def ci ñett yi amma bi itqi raqaba mu'mina nga goreel ab jaam aw siyaami shahrayn mutatabi'ayn wala nga goreel ñaari weer yu tegaloo naam nga woor ñaari weer yu tegaloo aw it'aamu sittiina miskina wala nga leel juróom benn fukki miskin li kulli miskinin muddan min burru mooy ku nekk nga jox ko benn mudd ci pepp mudd à peu près ay entre cinq à six cent six cent grammes lay doon loolu tax boo ko yóbboon ba un kilo it day nekk lu baax rek mi ngi noonu aw sha'ir wala orge aw tamrin wala tandarama bi hasbil istitaa ci kémtalaayil sa kattan ca bu dee ne dëkk mel na Sénégal wala boog ndakaaroog la ko wër dañ naan ceeb su dee fa ñuy gën a dundi dugub ñu wax dugub mi ngi noonu lama marra fi xadiis rajul alladi waqaa ala imratihi lu mel noonu romboon na ca góor ga àndoon ak soxnaan ci bëccëg weeru koor la ko yonent bi waxoon fastafta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi ngi noonu yonent bi wax ko loolu wa tuaddu lkafaratu bi taaddudi lmuxaalafa bu dee da nga lim juyoo yi ki nga xam ne ñaari bëccëg ñetti bëccëg ci weeru koor def na ci loolu ñetti kafaara moo koy war ñetti kafaara moo koy war mi ngi noonu amma bu dee ci benn bëccëg ba nga ko def loolu moom bëccëg bu nekk ak kafaaraam waaye bu dee ne da nga ko def ci bëccëg yu tegaloo bëccëg bu nekk ak kafaaraam fa man jaamaa fi yawmin wa akala wa shariba fi yawmin axar fa inna alayhi kafaaratayn ki ànd ak soxnaam tey ëllëg mu lekk ci beneen bis day am la nga xam ni ñaari kafaara léegi nag lan mooy alxikma fil kafaara lan mooy xikma bi ñuy mën a gis tax ba suñu boroom tëral ne ko woor daal di dog moo ko tey ne def kafaara wal xikmatu fil kafaarati hiya sawnu shariati an talaubi biha mooy ñu fexe ba peeg shariat yi ñu bañ koo foye mi ngi noonu wantihaa ki xormatiha bañ a xotti ay warmaam tey jii jullit bi nga xam ne bakkanam mi ngi ko yóbbu mu wóog ànd ak soxnaam ci bëccëgu weeru koor wala lekk wala naan xalaat ne lii de su ma ko defee sharia def naan ma naa tegale ñaari weer loolee bala koy def dana ko seetaat amma bu doon loolu amul nga xam ne yow boo dogee tey it ëllëg beneen bis ngay fay rek da ngay gis ni ñu bëri bu leen seetaane ma ah garaawul naa dog tey ëllëg ma fay waaye sharia naan la déedéet gis nga boo dogee ci bëccëgu weeru koor bi ñaari weer ngay woor yu tegaloo loolu kon xikma la pour arrêté la kama annaha tutaxiru nafs al muslim min asaari zanb li muxaalafati lati irtakabaha bila uzr gannaaw ba it loolu mooy far bakkaar ci julit bi ci buur bu toll ne yàlla sant la na wooral yow nga lank kaare bañ a woor loolu bakkaar la bu bon boo xam ne ni mi ngay nekk sa kaw la koy far mooy nga goreel ab jaam boo ko amoon amoo ko nga woor ñaari weer yu tegaloo soo ko mënee boo ko mënul nag ngay dooga léeg-léeg juróom benn fukki miskin wa min huna kaana yanbaghi an tuaddi alkafa an tuadda alkafaratu ala nahwi alladi shuriat alayhi kamiyatan wa kayfiya loolu tax ba kafaara boobu it dañ ko war a tërale ni ko sharia tërale ci kemam bi ak ci naka lañ koy defe kemam bi masalan juróom benn fukki miskin la ku nekk nga jox ko la nga xam ne mooy muddu ci taam amma bu dee ne koor ga it ñi ngay woore ñaari weer yi da nga ko war a tegaloo boo wooroon quarante cinq jours na ah tàyyi na bàyyi ca du ngant sharia lépp ay nekk à zéro fokk mu nekk deux mois yu tegaloo sinon koor googu baaxul mi nga noonu kon il faut mu nekk lim bi ak façon bi ñaar yëpp dafa war a am lim bi ak façon bi mi ngi noonu xatta tanjaha fi adai muhimmatiha bi inzali zanbi mi bi izalati zanb wa maxwi asaarihi ala min ala nafs ba baa muy réussir di mucc ci joxe itte ba nga xamee ne nii mu lay aju ci kafaara boobe ba mën a teggi bakkaar ba far mboole mi jeexital yi amoon ca bakkanam wal aslu fi lkafaarati qawlu llahi taala lay cosaan dëgg-dëgg ci kafaara mooy sunu borom dani inna alxasanaati yuzhibna sayiaat jëf yu baax yi day yóbbu jëf yu bon ya mi ngi noonu wa qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam ittaqi llaha xaysuma kunt yonent bi dana wax waay foo mën a nekk nekk faag ragal yàlla watba is sayiat alxasana tamuha toppale lépp lu ñaaw looy def toppale ci lu bon subhanallah lépp lu bon loo def toppale ci lu rafet lu rafet loolu bu ñëwee da koy far wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasan képp koy jukkawonteel di jëflanteeg moom gàllawaay jëflanteeg moom ci jëflante boo xam ne bu rafet bu baax la mbokk julit comme ni ngeen ko xamee ci tawféexu borom bi subhanahu wa taala la ñu yàlla dëppale suñu daruusi ramadan yàlla dëppale koog baraxlu suñu dernier dars yem képp ci sunu heure bi ñu war a arrêté fii la darsu koor yëpp jeexe te loolu programmé wuñ ko wallahi suñu borom yàlla moo ko programmé noonu moom mi ñu dëppale lii yàlla nañu dëppale mboole mi ngërëm moom adduna ak alaxira te dëppale ñoog yërmandeem ak njéggalam ak afiyam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal junj naa ko ci biir biir wax ji te mooy bi ma la bu ma waxee loolu ne am na ñu ci wax leneen boo ko déggee rek am na leneen lu ñu ci wax loolu mi ki ko nekk li mooy asma bint abu bakar mi nga noonu mooy magu aïcha radiallahu anha nee na dañoo dogoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu dogee ba pare jant bi génnaat loole da ngay gis yenn ci borom xam-xam yi dañ koy sukkandiku ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu leen ñu fay bis boobee ñoom ñuy jàpp ne loolu kon kum dal doo fay bis tonte ne bu dee ñeneen ñi nga xam ne dañoo gis ne da ngay fay bis ñoom dañ ne yonent bi waxu leen bu leen fay yonent bi waxu leen fay leen kon mbir bi dañ koy delloo ci cosaan cosaan bi mooy lan mooy dañoo war a woor ba jant bi so kon képp koo xam ne dog na avant jant bi so kooku kooram baaxul loolu moom mooy benn tontu ca tontu yéen ca tontu am na yeneen yu ñu wax ñu jëm ci côté. benn xadis la boo xam ne nii ci asma rek lañ ko déggee waaye daal la gën a am solo loolu la ñu wax looloo tax borom xam-xam yi am ci loolu ixtilaaf donte ne ñun suñu suñu gisin ñun ci gisinu borom xam-xam yi bépp mbir boo xam ne ñii dañ ne lii baax na ñii ne baaxul nga def la nga xam ne ñëpp nee nañ baax na moo gën a dal xel loolu loolu lañ gis maanaam am na borom xam-xam yu bëri dañ ne ki nga xam ne wóor na ko ne dox naa sama koor ci jant baa ngi soowagul ku mel noonu dafa war a fay bis am ñu ne bu dee da ngaa jàpp ne jant bi solo doo fay bis la gën a mucc ayib rek mooy nga def la nga xam ne ñëpp nee nañu lii moom baax na naam wallahu subhanahu wa taala alam naam naam nit ki mën na kafaaral mbokk jullitam bu dee ne ci wàllu dimbali ko ci wàllu nuñ koy waxee may ko jaam bu mu goreel wala may ko lekk gu mu saraxe bu dee koor gi moom doo ko ko waroon waaw mi ngi noonu xanaa mu mu waroon ko ba pare dee su boobaa man nga ko ko wooral man nga koo génneel ay miskin fay bis bu ne nga defal ko miskin wax la mel ni mazhab Malik sax ñoom la leen gënal mooy nit ki nga xam ne mbokkam daa bàyyi boru koor mu génneel ko ko sarax ko miskin yi ndax ñu ne loolu ci la miskin yi di gën a amee njëriñ ñu wooral ko ko ñoom loolu lañ gën a privilégié que ñu wooral ko ko am maa nag bu dee ne may ko jaam bu doon jaam bu ñu am na fi nga may ko jaam mu goreel ko wala nga jox ko ñam bu mu sarxee comme yonent bi alayhi salaam ni mu defal waa ji loolee mënees nañ caa dimbalante wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah buñ jëlee lan di ca sangu suufu bàmmeel bi ñu jël ko di ko sangoo waaw waaw waaw waaw loolu de dañ koy def nit ñi dañ koy def waaye loolu jéggi dayoo la jéggi dayoo la ci nit ñu baax ñi da ngay gis ñoo xam ne buñ jógee ci seen daje yooyu compaale ay suuf su ñuy di ko jox seenu njaboot yaa ngi dégg am na koo xam ne ko ñu tànk la ci ay pepp ñii ñu leen jël da koy sangoo am na ñuy dem ba koy naan sax waaye mbokk loolu nekkul loo xam ne nii même bu doon bàmmeelu yonente bi sallallahu alayhi wasallam sax jaaduwu ca waxuma nag bàmmeelu keneen ku dul moom suufus bàmmeel moog suuf yi c'est la même chose képp ku ci gis ne ngëneel ma nga ca ba tax nga koy sangoo wala di ko bànneex di ko di ko barkeelu loolu xamoo diine loolu bokkul ci diine wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam rasul salaa salaam def na waa ji ndax man ngaa goreel jaam mu ne ko déedéet ndax man ngaa woor ñaari weer mu ne ko déedéet mu ne ko ndax man ngaa leel miskin mu doog ko wax déedéet looloo tax ba bu dee kafaara ci la nga xamee ne nii moom mooy wàllu koor gi lu bari ci borom xam-xam yi dañ koy méngale ak kafaara ci wàllu zihaar suñu borom subhanahu wa taala mu ne fa tahriru raqaba fa man lam yajid ku amul fa siyaamu tataabi'ayn fa man lam yastati ku mënul na woor la nga xamee ne nii moom mooy lu la nga xamee ne nii moom mooy miskin yooyee loolee mooy la ëpp ci borom xam-xam yi di wax mooy bala ngaa dem ci benn da ngay dem ci ba ca des donte ni ne am na ñoo xam ne nii dañ koy méngale kafaara bi am ci waat xam ngeen ci waat moom suñu borom waxul ku mënul daf ne aw aw mu ne koo xam ne dafa waat lam defoon mu def ko fa taxriiru raqaba aw itaamu asharati masakin aw aw kiswatuhunna mi nga noonu koo xam ne nii dafa suñu borom sax dafa war a dafa jë jëkke ki nga xam ne dafa bëgg a kafaara waatam na leel fukki ja fukki fukki miskin wala mu woddu leen war mu goreel jaam boo xoolee foofu goreel jaam ba sax la yàlla mujjee loolu mu wax aw aw aw boobu moom lu la ci neexi def soo ko mënul nag la borom bi da wax fa man lam yastati ki mënul ci ñetti yépp lay doog a war ñetti fan kon ñetti fan yi doo ko war lu dul ñetti yi da nga koo mënul naka noonu it lu bari ci borom xam bi lañu wax kafaara ci wàllu dog bi su koor dañ koy xool ci kafaara zihaar doonte ne ne da ngay gis ne am na kenn ku may fàttaliku ci borom xam-xam yi benn buur bi mu defee loolu nga xam ne mooy dog boobi ba mu ko laajee daf na ko buur loolu ku ko def da ngay woor ñaari weer yu tegaloo am ay taalibam na ko waaw suñu di dañ da ngay goreel jaam mu ne kii goreel téeméeri jaam du dara ci moom leel junniy miskin du ko dara ci moom moo tax ma ne ko doo ko dog da ngay woor ñaari weer yu tegaloo ala kulli xaal loolu daal mi ngi noonu mbokk julit wallahu subhanahu wa taala alam waaw xam naa ñu mujj ci mbokk bi rek bisimilah waaw ah waaw lim ne li kulli baladin yaddu ah ah li kulli baladin ru'yatuhu waaw waaw ala kulli xaal loolu moo ko ixtilaaf la boo xam ne nii mooy fitne bi gën a rëy bu dal jullit ñi mooy ndax weeru koor dañ koy xool ci gox yi wala dañ koy tënk ci àdduna bi ñii sukkandikoo waxu Ibn Abbas boobu di xadisu kuréy bu boobu loolu ñoom ñooy gis ne ixtilaaful mataali ba nga xamee ne duñ sukkandiku ci koor lu dul dëkk bi nga wër ak dëkk yi ko wër te loolu mooy li gën a siiw ci mazahib yi rawatina li ñuy sukkandiku fii ci réew mi amma bu dee ne nag yeneen gisin yi te jàpp nañ ne ci jamonoy mondialisation bi ñu nekk nga xam ne li ngay xame li xew Makka moo gën a gaaw sax li ngay xamee li xew unité de sept gi kooku la gënoon a noppal jullit ñi mooy ñëpp bokkoon benn calendrier loolu mooy la nga xam ne mooy mbir bi su ko defee it loolu moom xëy na pour mu am dana jafe lool waaye lu mu mën a doon rek ñu tolérante ñaanalante ngir yàlla nangul ñu yàlla na yàlla boo la ñu nangul ñu ngi fàttali ne ajjuma ci takk yi ñu takk mooy sént bu jëkk ci weeru koor te la ëpp ci àdduna bi ajjuma mooy sént bu jëkk ci weeru koor suñ ko gisee dañuy woor samedi incha allah suñ ko gisul nag yóbbu ko ba dimanche ba والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين